الحمد لله المجيب ذي الخدر من خسنا فضلا بليلة الخدر بوكي جوليدي بوكي طالبي ديغال بايكو واتنا سي سيرن توبا شيخ سيدي المختار خليفه سنرال كل مريد يالنا في ياغ لول تا اندكو وير جار سي سيرن عباس مباكي خليفه مام تيرنو ابراهيم بروم دار المفتي واي جار سي سي الحاج مام تيرنو خليفه سيرن شيخ اوا بالله ñëw nag ci njabootu soxna may Maymuna ci njiitul sëriñ Maodo Mahfous mi toog ànd ak soxna Baali moom soxna Maymuna ak mbooleem njabootu soxna May gépp ci bis bii nga xam ne mooy bisub laylatul xadar bis boobu nga xam ne moom la soxna Maymuna daan waajal ci dundam gépp ci alquranul karim ak xasiday sëriñ tubaa ak bernde ànd ko ak mbooleem umma islami bépp nag bis boobu la ñuy waajalaat moo ne ci sun kanam war a nekk alxemes fukki ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru koor di guddi ñaar fukki fan ya ak juróom di bëccëgum ñaar fukki ak ñeent war a yemoo ak fan fanweeri fan ci weeru juin. taalibe yi ci biir réew mi muy président daayira foo mën ne ci réew mi wala muy jëwriñ toolal ba wala muy ko noo demete di taalibe rek yaakaar sëñ Tuubaa wala nga yaakaar sëñ bi ak foo mën a ne nga dikk ci bis bii te waajal ko te xam ne soxna May moo ne amatoon lu lay dul xadar te fonkoon na ko lool te jàppar na ko ànd koog réew mi ànd koog julli bàyyi koog njaboot gi mu fi bàyyi muy sëriñ Modou Mahfous Mbacké mii ak soxna baali ak sët yi ñu ngi ni toog ak mboolem mbokk yi sëñ bi bëgg kenn ku ne nga tàmbalee waaj tay te ñëpp fas dik te ku dik ku ne xam ne liggéeyab sëñ la te liggéeyab sëñ Tuubaa lu sa waay def sa bopp nga defal daayira yi nga xam ne ñoo war a gan yi war leena a kon loola lañ ci wara japp moy ndigal li ñu soxna may daan jox lam nu daan jox moy na ngeen fexé ba xéewal ngeen jox ko nit ñi na ngeen fexé ba bu fi dara dess na ngeen fexé it ba bu kenn mer kon loolu ñun ñi ñu séq liggéey bi moom laa leen di soññaat gan nag ñaar rek las ko war a gàttandoo mooy gàttandu ko euh, teral ko la ca dolleeku mooy nga bañ a noonoog moom te neexal ko loolu defe naa koo def gan la nga la nga bëgg ci moom di nga ko am kon loolu ñu ngi ciy soñu daayira yëpp rawatina nag daayira bi nga xam ne mooy daayira taawunu alal birri wa taqwa taxawaay bi ñu daa taxaw muy ci kër gu mag gi ci taxawaayu liggéey bi ak asalam ya ci kër sëñ Moodu ak ci mbaarum sëñ Fallou mi nga xamante ne foofa la ñuy fanaanee jàng xasida yi ba bët set muy kuréel bi ñoom ñëpp maa ngi leen ci soññ di soññ mboolem waa daayira bi ak mboolem ci aju nu fas yéene nag nin ko daan defe rek ci di ko soññee ñu di ko soññee ci liggéey bi tàmbalee ko ci sunu bopp ci daayira bii nga xam ni moo nekk ci biir kër sëriñ Mouhamadoul Mahfous te sëriñ Ndiaga Fall jiite ko ak foofu waaye mën a ne ci biir dëkk bi ak soppe yi nga xam ne dañuy soppee soxna May te neen bokk daan ànd ak nun liggéey bi ñëpp ñu ngi leen di soññi dañ ko daan taxawee ci kër gi ci aslem ak fépp foofu taalibe ne di soññi daayira bi di soññi daayira yi ci des lu men ñu nekk Madiane ak foofu waaye man na ñëpp ñu ngi leen di soññi di soññi sunu boppit ci wàllug jàngkat yi nga xam ni mooy daayira bi nga xamante day daayira lu xasida te sëriñ alsaan kan jiite ko ñi ngi leen di soññi di soññi jànkati alxuraan yeeg jànkati xasida yëpp nañ ko daan yendoo ci bis ba ñëw foofe ci aslem yendoo ko fa jàng alxuraan ak xasida ñoom it ñi ngi leen koy soññ bu baax a baax di soññ ñëpp di soññi waa Daarul Wahab itam ak dëkk yi ko war ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññi ndax ñoom it kenn jiituwu leen ci liggéey bi kon noo ngi ñaan daje cee ngërëmu sëriñ bi te yàgg koo fekkee noo ngi leen di nuyu turu sunu sëriñ alaaji maam Cerno Mbàkke muy woote bis bi nga xam ne muy Laylatul Xadri muy bis bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci Touba Asalem muy bis soxna May mi ngi ci woon ak bokki julli yëpp ak bokki taalu bi yëpp rawatina ñi nga xam ne mooy seen jëwriñ ñu aju ci kër sëñ Cheikh Balla fu a nekk ci biir réew mi ak bitim réew jox na leen ndigal ñu bis bi góorgóorlu ci kenn ko la nga ci def na nga ci def lu ko lu ko ëpp ñëpp waajal ko te fonk ko ngi woo bokki taalu bi yëpp ñu góorgóorlu ci te xam ne bis bi kat bisu soxna may la bisu suñu Cheikh Balla bisam la ndax soxna may bintu Xaadimu Rasuul bis bi moom la gënoon fonk ci àdduna gannaaw bi bis bi moom lañ koy defal te ñoom ñaar ñëpp mooy seen jëwriñ tey mooy jëwriñ suñ seexu balla moy jeuwriñ soxna may kon na mi ci wo ñep ñu lu ci fonku gannaaw man sama wala bop ma ngi soññi sama tal bi nga xamne sama samay la ñuy seigne cheikh balla dañ nan and ak liggey bi di jappalé sunu rak yi di seigne cheikh abdou ak seigne euh, ma cheikh ñu ñew and ak ñom jappal leen ma ngi soñi seigne khalil mom seigne wuru muxtaar ak rakam seigne am mom seigne ateex ak rakam ak seigne mara ak rakam ak euh, seigne sidi mom seigne am ak rakam ñu bokki tal bi nga xamne ñoo bokkoon ànd liggéey bi di ko def ba nëgëni muy fa na fa la bis bi soso muy daaru man kër suñu Seexu Balla maa ngi soññi daara yi fa nekk yëpp surtout gone yi ak waa daaru musti ak waa daaru wahab ak waa daaru minam pet rawat nag taalu bi nga xam ne fii ci biir tubaa ñoom sëñ bi jox na leen digal ñu fonk bis bi waajal ko def ay xéewal ak lépp luñ ci daan def nañ ko yokk ñoo ànd ak sëñ Moodu ñu ànd taxaw bis bi noo ngi ñaan daal képp ku fi nekk talaata àllarba alxames ba ajjuma sëñ bi ñaan ñaanal delluwaat ñu taxaw gan ñi dal leen teral leen teru leen dinañ fàtt li nga xamante ne bii noo ko bokk te kenn fàttiwu ko mu di leetu xadar gi nga xam ne soxna si da def fonkoon ko tànnoon bis bi di ci liggéeyal wajurum wa sëriñ tuba te mu fi jógee ba cheikh mahfous ak soxna bali wuutu ko ca ànd ko ak mboolem njabootu sëriñ tuba gi yépp ren ji nag ñu koy le 30 juin dëppoog ñaar fan ak ñeent ci bëccëg koor gi nekk guddi ñaar fukk ak juróom ñu di ci woo mbooleem mbokk yi ak nag nu ñu mën a bokkee ci askan wi di ci woo mboolem taalibe yi di ci woo mboolem jurit yëpp di ci woo itam ñu nga xam ne ñoo yëngutu ci biir réew mi ci fànn gu mën a nekk di ci jiite ki nga xam ne moo di président de la république Macky Sall ak mboolem ñu yëngutu ci fànn politique gi moo xam ñu àndal la moo xam ñu nekk ci kujje gi la ñu ngi woo bokk yëpp bàyyiwuñu kenn ren jii nag def nañ ci programme yoo xam ne yu bari la yoo xam dañ ko yaatalaat ci ay xeeti conférence yoo xam dana mat mat juróom-ñett ba jàpp fukki conférence yooyu itam ba nga xam ne mooy dimanche yi nga xam ne mooy jiitu màggal gi nekk la le 26 conférence bañ daan def te jagleel ko doomi Sëriñ Tuubaa jigéen ñi danañ ko defaat te kër Sëriñ Tuubaa ren yi ñu tudd ko soxna Asu Mbakke buñ ne ba ca talaata ja muy conférence bi nga xam ne moo ci gën a rëy itam moom itam ñu ko daan def dëppoog le 28 moom itam danañ ko fa defaat wante ren jii dafa am luñ ci yokk ndax ren Sëriñ Falilu lañ ko tuddee ndax bis bi ba ko soxna si tàmbali Serigne Fallilou moo ko joxoon moo ko joxoon digal moo tax ren ji conférence bi ñu jël ko jagleel ko ko bu déwénee itam noonu lañ koy topp ba njabootu Serigne Touba gépp jeex. ci tuuru Serigne Abbas mi nga xam ne moo di tey xalifatu Cheikh Ibrahim borom Darou Mouhty nii ñu ko daan baaxoo defee ci woote guddi gi nga xam ne mooy guddik laylatul xadri gi nga xam ne e, naka jëkk e, xam nañu ne soxna May taxawaay bi nga xam ne e, moom la ci daan taxaw radiyallahu anha mm, kenn xamul ku ma sa taxaw ku ne ku mel loolu moo tax sëriñ bi sëriñ Abbas bëgg képp ko yaakaar borom daaru mooti ak foo mën a bokkee ci borom daaru mooti bunt boo ci mën a duggee rek nga xam ne bis bii sama kon sëriñ Cheikh sëriñ Abbas dafa bëgg képp koo xam ne kii war nga cee def sa loxo ci ci guddig laylatul xadar gi te bëccëg ba ca la bokk mu bëccëgu alxames ba ak guddi ga nga xam moo tax ñu wax laylatul xadar lépp lu ca waaye def lu nekk na nga jàpp ne defal nga ko sëriñ ak borom daaru mooti def ko kàddu cant jëmale ci sunu kilifa yu tedd yi nekk ci sunu kanam te ki ci bopp di Cheikh Sidil Mokhtar xafidahullah wa raa muy jëmi sëñ Tuba di ñaan sunu borom yàggal ko fi te may ko wér ba li mu yéene liggéeyal wajuram ya yem ko liggéey yéene ko liggéeyal maamam ja mu def ko nam ko bëggee mook njabootam gépp xam ngeen ne bis bi dafa tegu ci ndigal ñun ñi fi bàyyi di soxna Bali ak man yoon wa mu jaaroon rek lan fas yéene jaar ba ban koy fekki mooy duñ ci def lenn maan wax ci lenn te laajuwoon ndigal yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci sunu kanam. loolu moo waral bi weer bi feeñee ñu ànd dem ba ci Cheikh Sidil Muxtaar laaj ko ci ndigal mu yeesalaat ndigal li feddili ko ñaanal nu ci bis bi nag mooy bisub soxna mooy mën a mbàkke te bu ñu nee bisub soxna mooy mën a mbàkke mooy bisub yoonu murit bépp mooy bisub diine jëpp ndax ni bis bi toll ak fii bis bi àgg. kon nag noo ngi koy soññee mboolem bokk yi di ci jël suñu bokki bopp yi bokk yi nga xam ne ñoom leen bokkal sëñ Touba bokk ñoom maamaaram ñu xam ni bis bi seen bisu bopp la ñoom ñëpp noo ngi leen ci soññ di leen ko fa jégal di leen ko fàttali fas ko yéene ànd ak ñoom ku ne xam ne tolluwaay bis bi ci diine islaam muy bis bi nga xam ne sunu borom wax na ne bu dikkee guddi gi day malaayka yi dañoo wàcc ànd ak Seydina Jibril mi am mi de moo xam ne mooy amoo de ar roox lépp lu fay jëf ñu segg ko bay delloo ko ci son borom di bis bi nga xam ne itam ci la ñuy séddale lépp inna ansalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin fiha ku kullu amrin hakim sunu borom lépp li muy li muy nar ak li muy tër ak li muy séddale ci guddi lay toxadar la koy defee di guddi nga xam ne itam ci la Sëñ Tuubaa ñaanee ne yaa rabbana bi fadlil hadal bi fadlil hadal yawmi aslih umuri wa umura qawmi ci barkeb guddi gi ak màggu guddi gi ci la sëñ Tuubaa ñaani sunu borom mu yéwénal mbooleem ay biram mbooleem ko aju ci moom yéwénal biri mbooleem ñi mu bokkal réew mi kon nag màggaay guddi gi foofu la toll te soxna may amuloon lu dul bis bi ndax moom dafa jël léppam jébbal ko sëñ Tuubaa def boppam taalibeb sëñ Tuubaa di xëy ci toolub sëñ Tuubaa di gont ci bi sëñ Tuubaa loolu moo waral mos la nangoo am beneen bis du ci diirub lim fi nekk loolu moo waral bëggul ku ko wutal beneen bis gannaaw bu fi bu mu fi nekkatul dafa bëgg ñu wéyal ko liggéey boobu di liggéey boo xam ne lépp liggéeyal Sëñ Tuubaa la ci jublu bépp nag li ci ëpp doole mooy njàngum alxuraanul karim mi noo ngi soññi mboolem daara kaamil yi nga xam ne jot nañu sunuy bataaxel jot nañu sunuy hadiya di leen soñ ci kenn ku ci nekk lim boo daa jàng loo ci mën a dolli nga dolli ko ca ak ko sell def ko hadiya Sëñ Tuubaa def ko hadiya Soxna a Mbàkke loolu noo ngi ci soññi lépp ko yëgal nag mboolem ñunu bokk réew mépp di ñi amee wàllu adduna bi di président de la république ak mboolem ñu ngi ko seqal di ko yëgal mboolem mbokk jullit yëpp nga xam ne noo bokk réew mi bokk bokk diini ji bokk lépp kon loolu rek mooy mooy mooy woote bi ni ñaan sunu borom defal ndimbal ak tawfeex ba nag ci ak jàmm te lépp luñ ci séntu wala lépp luñ ci sàkku sunu borom defal na ko boole na ko bokk yëpp boole na ko bokk jullit yëpp